salaamaaleykum mbokk internet yi mercredi 29 mai 2024 ñu ñëw ak yéen ci xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram xibaar yi njëkk jëm ci tàggat yaram nag bokk na ci Xavi mi tëqalikoo ak waa Barcelone officiellement tey jii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 boppam ki nga xam ne dafay gaaw a yegg solution bi Serigne Souhaibou Mbacké la jokkool ak moom mu lijjanti say mbir ci sutura nga dal di yàlla Serigne bi yemul ci loolu képp koo xam ne dangaa bëgg ubbeeku ci wërsëg wala li nga bëgg mooy bayre ba ci kaaraange am na jaarub bayre am na jaarub ubbeeku ci wàllu wërsëg ba ci jaarub kaaraange Serigne bi dina defar ay fas fas yoo xam ne dina dimbale jigéen gi nga xam ne dafa taxaw maanaam mënul am doom ba ci nekk ci ndakaaru bu dee altine bi ak talaata maanaam lundi ak mardi mu ngi ca Touba alxames muy maanaam jeudi foofu la ca Xelkom ngir jokkoog moom jëlal numéro bi woo ko léegi-léegi 78 578 yi dooree ci doomu Sénégal bi tudd Nobel Mendy moom nag club naan Paris FC nekk ci réewu France ñoo moom waaye dañ ko able woon ca Betis Séville gone gi nag taxawaayam ak amuk fullaam tax na club boobee di Betis Séville nekk ci réewu Espagne bëgg koo xaatimal contrat wu ñetti at te daanaka lépp yemb na waa Betis li ñu bëgg moo di xaatimal contrat doomu Sénégal bi ba atum 2027 club bu ñu naan Paris FC nag ñoo ko moom gone gi nag défenseur la bu football am ci moom yaakaar xibaar boobu ëdee moo ko xamle Estadio Deportivo ñu jugee ci Nobel Mendy ak bëgg-bëgg boobe waa biti Séville am ci moom jël beneen doomu Sénégal kii mi ngi tudd Abdallah Sima ma nga ci réewu Écosse club bu ñu naan Rangers waaye club bu ñu naan Brighton nekk ci réewu Angleterre ñoo moom doomu Sénégal bi able ko ca Écosse waaye ma ngi fay doxal moom mii nag dafa séq waxtaan bu yaatu ak waa record nekk fii ci réew mi moom nag limu xam le moo di fa mu nekk ci réewu Écosse ma ngi fay am jàmm jàmm ak salaam te nit kat fu muy amee jàmm képp foofee moo koy gënal loolu la nit di wër man nag maa ngi ci jàmm maa ngi ci salaam te maa ngi bégee kon bëgg-bëgg bi mu am moom doomu Sénégal bi moo di des ci réewu Écosse club bu ñu naan Rangers dañu ko fa able nag Brighton moo ko able foofee muy Abdallah Sima ci fàttali woo nañu ko ci équipe national bi ngir ñaari match yi nga xam ne war nañu ko jongante ci weeru join bi ñu dëgmal ñu jugee ci Abdallah Sima ak i bëgg-bëggam dem ca équipe nationale national bu Cameroun foofee nag démb coow lu rëy moo fa am coow li nag mi ngi doon dox ci diggante Samuel Eto'o mi président fédération bi ak seen coach bu bees bi tudd Marc Brice Marc Brice moomee sax yàggagul ca équipe nationale bu Cameroun toogagut benn match ngir tàggat leen waaye kat coow lu rëy moo dox ci digganteem ak Samuel Eto'o tax na nag Samuel Eto'o mise à pied na ko maanaam tegandee gum na ko ca wet gële ne ko doo liggéeyagum loolu tax na ministre des sports bi jël ndogal ne list bi nga xam ne siiwaloon na ko ngir ñaari match yi na équipe naal bu Cameroun list boobee dañu koy annuler maanaam dootul baax dañuy wut ku ñëw wuutoo gum ko foofee loolee sax amal nañu ko ba noppi ndax doomu Cameroun bi tudd Martin Tungu moom la ñu woo ngir mu wuutu foofee ki nga xam ne moo coow ak Samuel Eto'o nekk seen coach bu bees bii nga xam ne Marc Brice la ñu koy woowee kon nag match yi Cameroun am ñu war koo jongante ci weeru juin bii ñu dëgmal moom mii di doomu Cameroun moo leen di tàggat en attendant ñu liggéeyantee gum mbir moomee dox ci diggante Marc Brice ak Samuel Eto'o ñu jugee ci équipe nationale bu Cameroun ak coow loolee juddu fa jël doomu Argentine bi tudd Ángel Di María moom nag ma nga woon ca Benfica loole la ñu mën a wax ndax kat contrat bi ko lëkkale woon ak Benfica jeex na tàkk ndax saison bii ñu génn moo doon saison wam bu mujj ak waa Benfica te yokkul contrat am ESPN nag nee na ci réewu Amérique la doomu Argentine bi jëm club bu ñu naan Inter Miami foofee la jëm ngir fekki fa Lionel Messi Luis Suarez ba ca Jordi Alba ak ñoom Busquets ESPN nee na jubóobu am na bu yàgg li ci desoon moo di ñu xaar ba saison bi jeex te saison bi jeex na foofee ca réewu Portugal kon day juge ca Benfica dem ca Inter Miami doxal ñu jugee ci Ángel Di Maria ak i bëgg-bëggam jël doomu Brésil bi tudd Bruno Guimarães moom nag nga ca Newcastle di doxal waaye kat doomu Brésil bi mën naa am waa Newcastle jaay ko ndax club boobee dañoo am jafe-jafe ci wàllu fair play financier te faw ñu jaay ay jour mën a yemele mbir mi tolloo ba duñu ca am benn jafe-jafe gone gi nag waa sa City dañu ko bëgg te fawuñu ci ay mbiram kon waa Manchester City ñoo gën a jekku ngir bu ko Newcastle di jaay ñu xaatimal ko contrat muy Bruno Guimaraes xibaar boobu aas yéene kaay moo ko ñu jugee ci Bruno Guimaraes ak bëgg-bëgg boobee waa Newcastle am ci moom dem ca waa Borussia Dortmund ñoom nag bëgg-bëgg bi ñu am moo di xaatimal contrat doomu pays ba bi tudd Madsen gone gi Chelsea moo ko moom waaye da koo able ca Borussia Dortmund saison bu baax nag la doomu pays ba bi amal loole tax na waa Borussia mun bëgg koo jënd ci waa Chelsea waaye jamono ji moom dañoo bëgg a bàyyi ba final Ligue des Champions bi jeex ñu door a songo ay mbiram jéem ko ca Chelsea bàyyi ko ci seenu club définitive mu doxal clause bi ko bàyyi ca Chelsea nag bu ñu ko xayma dina toll ci quarante deux millions d'euros waaye nag waa Borussia mun dañoo bëgg a bàyyi ba final Ligue des champions bi jeex ñu door a songo ay mbiram loolee la Fabrizio Romano xamle. ñu jugee ci Madsen ak bëgg-bëgg boobee waa Borussia mun am ci moom jël Igor Tudor mi tàggat Lazio de Rome moom nag mën naa am mu teqalikoo ak waa Lazio de Rome waral moo kat moom ak njiitu club boobee déggoo ci kàddu loolee mën naa tax nag mu teel a jógee ci club boobee naam yàggagu fa waaye jamono ji dañoo nekk ci ay jafe-jafe te soo moytuwul dina fa jugee balaa yàgg moom Igor Tudor ñu jugee ci Igor Tudor ak jafe-jafe yooyee dox ci diggantem ak Lazio de Rome jël doomu Espagne bii di cabi comme ni ma leen ko waxee ci ndoorte xabaar yi ginnaaw bi mu tekkalikoo ak Barcelone nag doomu Espagne bi lambul ndax réew yi bëgg bari nañu lool ba ci club yi nga xam ne ñoo koy bàyyi xel bu dee réew mii di Corée du Sud moom woo nañu doomu Espagne bi di Xavi ne ko dañoo bëggoon nga ñëw tàggat sunub équipe nationale waaye doomu Espagne bi dafa gantal li mu xamal waa Corée du Sud moo di damaa bëgg a noppalu at door a jëlaat beneen club kon nag Xavi gàntal na équipe nationale bu Corée du Sud bu ñu sukkandikoo ci AS yéenekaay ñu jugee ci Xavi ak i bëgg-bëggam dem ca waa Real de Madrid bu ñu sukkandikoo ci Bild waa Real de Madrid ak doomu Canada bi di Alphonso Davies juboo nañu ci kaddu bu yàgg fi mbir mi tagga témbee moo di ci diggante Real de Madrid ak Bayern de Munich fan yii di ñëw sax waa Real de Madrid mën naa am ñu def offre waaye nag Real de Madrid nee nañu duñ ca def yenn xaalis yu bari yi